L'Ergue TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. في الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نوني ماغال بروم سبحانه وتعالى ديكو نيان يال نانيو اغ ويرو كور وي اك جام ñuy ñaan yàlla mu xéewal ñu wërsëgal ñu ñu woor ko mu nangul ñu koor gi lépp lu mu ci dig ay jaamam yi mu yërëm gërëm leen yàlla nañu ko defal kom na mu leen ko defalee weru koor ñëw na ba pare am naa yaakaar ni bu ñu woorut àjjuma samedi moom danañ woor incha allah diggante samedi ak dimanche koor gi mën na caa nekk kon ñëw na ba pare ñu war koo teeru ndax gan gu tedd la fa yàlla ndax weeru koor weeru borom bi la loolu moo tax ñu tànn mawdu xaasibu anfusakum qabla ramadan mooy xisaab leen seen bopp xoolaat seen bopp balaa weeru koor a ñëw yow jaamu yàlla bi man ak yow ak keneen moo xam góor nga wala jigéen ubbil sa xel ubbi sa xol ak say nopp te nga fas yéene bàyyi xel lii ci sa kanam su ne la waxoon ni am na gan gu tedd buy ñëw di la ziyaara danga nga defar sa kër defar sa néeg fóot say yére préparer sa njaboot ndax danga am gan gan lu mu tedd tedd weeru koor moo ko gën a tedd kon xisaabal sa bopp te yëg ne weeru koor weeru tuub la bakkaar yi bari na moy na caaxaan yi bari na kon tuubal dellu ci yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne dee tuub ci seen borom di jéggulu ndax man mii bis bu nekk danaa tuub jéggalu yàlla lu ëpp téeméeri yoon kon nag bu weeru koor dee ñëw nekk weer woo xam ne lépp yërmande yàlla la kon nan ko teeroo tuub ci say bàkkaar soo dee xale bu jigéen wala ngay xale bu góor ngay mag wala ngay ndaw xeexal ak sa bakkan jihaadal ak sa bakkan waaye auditeel say jëf jamono bu nekk bala nga teg sa bopp ci sa njegenaay di fas yéene nelaw xoolal yaay kan loo fi defal sa boroom ak loo fi def te seytaane tax dana la dimbale ci woyofal la kon moytul ay bàkkaar moytul defi bàkkaar ndax bakkan dafa nekk lu namm bàkkaar te mën koo def jullit bu nekk dana dugg ci lëggum bàkkaar kon la jaadu mooy tuub wa tuubu ila allahi jamian ayyuha almuminuun borom tuub leen yéen ngeen jëm ci yàlla yéen ñi woote woone gëm ngeen baal ni tuub nag kenn du ko def lu dul kuy xisaab bakkanam di xool ay jëfam ngir xam bu mu xam ni boroomam dig na ko te la mu ko dig dana ko ko jox ku la dig ñetti mbir jox la ñaar yi xamal ni benn bi léegi mu ñëw ku la ni dinaa la jox añ jox la reer jox la ndékki nga xëy mu taajal la ndékki nga ndékki ba suur añ jot ñu taajal la añ nga añ ba suur kon lu mu gudd gudd jarul yàkkamti dinga reer ndax ndékki ak añ ñoo gën a jafe reer kon ki la jox ndékki jox la añ bu la nee da nga reer la shakka di reer mooy suñu dund yàlla noon nañu dinaa leen dundal ñoo ngi nii di dund fa lilah alhamd noonu nañu dinaa leen rey ku deewul ci ñun am nga mbokk mu dee fa lilah alhamd nee nañu dinaa leen dekkal kon nag waajal te xam ni dund nga nit dee na nga des yow mi toog xamal ni ki dee yambare taxut mu dee ñàkk fayda taxut mu dee waxtoom moo jot sa waxtu bu jotee yow nag ngay góor ngay jigéen da nga yàlla bu waxtu wi jotee amut lenn lu lay tax xaar borom bi nee na laa yastaxiruuna saa wala yastaqdimuun su dee ñëwee moom kenn dootul wax nañu ko xaaral nangam ndax kat dee moom dafa am rendez-vous dafa am heure te mom malaka mii ray yàlla da ko jox horeram qul yatawaffakum malakul mawti alladhi wukila bikum borom bi neena ki len di ray moy malakul mawt biñu len bolel ki de ci accident danoo yapp auto bi rek waye malakul mawti la ki de ñu jam ko paaka dañoo yapp ki ko jam rek waye malakul mawti la kon malakul mawti moo yore ay façon du tee nag nit ki war a waaj kon borom bi subhanahu wa taala ne ya ayuha alladina amanu ttaqu llaha ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون برم بنينا أي ين ين جم جن يلا سفكني جم جدقل اتقوا الله رجل يلا lan mooy ragal yàlla ak taqwa hiya alxawf min aljalil والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل سني لا waxe luy ragal yalla moy nga ragal yalla ma nga xam ni leppam lu tedd la waaw waaw waaye nag nga yëg ni da ngaa war a préparer bis bala dee di dikkal kon nag xoolal lépp looy jëf yow xale bu góor bi say jëf segg ko xool ko yow bu jigéen bi say jëf segg ko xool ko yow mag mi ndaw mi say jëf segg ko xool ko kon wal tandur nafsun ma qaddamat li gad kenn ku nekk ci yéen na xool li muy jiital pour ëllëg kenn ku nekk ci ñun am na benn coffre fort kenn ku nekk ci ñun am na banque boo xam ni sa tur moo fa nekk say yi moo fa nekk loo def fa lañ koy noté te foofu nga jëm foofu mooy fan mooy bàmmeel wal qabru sunduqul amal lépp loo jëf su dee julli bu baax ñu ngi ko teg sa bàmmeel mu lay xaar su dee koor gu baax ñu ngi ko teg sa bàmmeel mu lay xaar su dee jàng alquran ñu ngi ko teg sa bàmmeel mu lay xaar su dee ziyaare mbokk ñu ngi ko teg sa bàmmeel mu lay xaar su dee dem màkka lu mënti doon loo ci jëf dana la jiitu xaar la ci bàmmeel lan moo tax bàmmeel moom mook avion ñoo yem fret rek la dangay jiital say jëf heure boo accès booy ñëw ci bàmmeel doo indi dara doo sol yére doo yore dàll doo takk lam doo yore montre doo sol mbaxana doo yore bic doo yore feuille boo xësee ba ñëw kenn du la jaawale jamono bii ñu nekk nii àdduna mën nañu koo jàngal amul kenn ci nit ku mën a réer lan moo tax xam ngeen empreinte nga xamante ne kenn ci ñun ci cee réer am na sax ñoo xam ne bañ nañ ko ba léegi empreinte dépassé nañ ko waaye ci bët la ñuy emprunté nit ngir bañ a borom bi ni mu ñu bindee kama xalaqakum taudun kama badaakum taudun borom bi nee na ni ma leen sosee ngeen juddu noonu ngeen di deewee kon nag sa bàmmeel looy jëf ma nga fa di la xaar weeru koor mi ngi ci yoon wi ñëw nee na nga teeru ko nga teral ko yëkkati ko teg ko ci sa bàmmeel mu xaar la foofu wal tandur nafsun maa qaddamat li xad xoolal li ngay jëf li ngay jëf ëllëg la lay xaar de loo mun ci def dëgëral bopp toppal lu la neex defal lu la neex yaakaaral ku la neex bëggal ku la neex fàttelikul جبريل عليه السلام وخلنا na النبي صلى الله عليه وسلم sallam يا محمد yaa عش ما شئت فإنك ميت واعمل بما شئت فإنك مجزي عنه واحبب من شئت فإنك مفارقه نكو يا محمد صلى الله عليه وسلم جندل لنيخ dana ñëw nga dee bis dana ñëw ish ma shita fa innaka mayit dundal lu la neex dundal lu la neex defal loo bëgg defal fa innaka mayit moo taxit innaka mayitun wa innahum mayitun kon dëgg la ni yonent bi génn na àdduna ku nekk xam na ni dundam moo gën a barkeel ci kaw suuf waaye bi dee jotee nan la mujj dafa dee yonent yàlla Moussa alayhi salaam malakul maut dafa ñëw yore jëmmu xale bu góor seet si Moussa di ko laaj si bi mu ñëwee seet si Moussa Moussa ne ko lu la yëkkati mu ne ko dama lay laaj si ndax da ngaa bëgg a dee wala bëggoo dee Moussa ne ko dee tip dóor ci kanam bi bi ko Moussa sone comme ni ko xale yu góor yi waxee bët bi tuuru bëtu malakul mawti tuuru bi mu tuuree malakul mawti dellu ci yàlla bi mu delloo ci yàlla ne ko ay rabb ay san borom yaa ngi nii yabal ma ma dem ci jaam boo xam ni buggul dee gis nga ni mu def sa mbët bi yàlla jël bëtu malakul mawti delloo ko ne ko dellul ci moom ne ko na jël ab nag bu taxaw mu teg loxoom ci nag bi ba mu daj su ko tegee ba mu daj mu rëdd ko benn kawar bu nekk dinaa ko ko defal at dollil ko ko ci dundam demal nga wax gis nga borom bi moo gën a xam jaam bi malakul mawti jël si waatee ne ko Moussa mu ne naam mu ne ko sa borom nee na na nga jël nag nga teg sa loxo ñu rëdd ko tepp kawar bu nekk yàlla yokkal la ko at ci siy dund Moussa ko ginnaaw bi lu ci topp mu ne ko ah ginnaaw gi dee amul benn wax dundal lu la neex waaye da nga dee lan moo tax ñépp dañuy dee kullu nafsin zaiqatul maut ku mos dund da nga mos dee Moussa ne ko bu dee loolu la de kon jaratul nañ ko fomm rey ma benn yoon doo nga nangu malakul mawti rey ko kon mbokk yi comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo dee ñun ñëpp insha allah dee mi ngi ñuy xaar kon innaka mayitun yàlla ne muhammad da nga dee de waaye wa innahum ñoom it mayyituuna danañu dee te it nag bu ngeen ñëwee yàlla ne dana leen atte kon bala koor gee ñëw xaasib nafsaka ya abdallah xisaabal sa bopp xoolal yow yaay kan fan nga jëm analal nga soxla loo lekk lekk munoo lekk ba jeexal lekk yi loo naan naan munoo naan ba jeexal naan yi loo nelaw nelaw munoo nelaw ba jeexal nelaw kon lekkal lu yem naanal lu yem nelawal lu yem suñ la nee koor gaa ngi ñëw bu mu la naqari na nekk kontaan ci yow bul jël koor foog ñi dafa ñëw nekk kaso pour toroxal la mais koor dafa ñëw pour sang la defar la teral la koor dafa mel ni xaalis gis nga xaalis bi ñuy wax wurus bi ko waa ji for ci àll ba ci suuf sa fa ñu ko gasee génne ko soo ko téyee bu ñu la ko mayee doo ko jël mook xeer ñoo yem rafetul amul benn valeur waaye ki ko xamul bu ko rombee da koy sànni waaye tëgg bi ko xam bu ko jëlee pour mu jox ko valeur dana ko jël teg ko ci taal lakk ko di ko lakk di ko lakk ba tilim bi deñ mu mujj jóge ci xonq jóge ci xonq ñëw ci weex bu weexee sell na mu defar ko la mu bëgg laxas ko ay morceau yu weex wëlbatiku tegaat ci kayit bu xonq utal ko paquet dugal ko ci vitrine marché ci lengi ngi ni bo demé or par gram lañ la koy jaay do ñëw ñu ne la temps la dañ la koy natal gram lan motax valeur bi la yow julit lolu moy sa valeur bo xamé lan moy jaamu yàlla bu fekkee da ngay jaamu yàlla di sellal di wor di top yàlla yow ya gëna nek ku mat seuk lolu mom moy personnalité kon nak wal tanzur nafsun ma qaddamat li gad kenn ku nek ci yéen na xol la muy jëf ngir ëllëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne al kayyisu man daana nafsa وعمل لما بعد الموت نانا كي موس دغ دغ دغ نيكول كي نخ نيت ني ديجل ديدر كي موس دغ موي كي بريبار دي القيس من دان نفسا موي كي خيخ اك سبكان با توك سي كوم با لي سبكان دغ دوكو ديف واي nga ديف لي نيه يالله سبحانه وتعالى ييغل ني ياو اب جوليت nga واي جوليت جوليتيم دو دغ لودول مو نيك كو خامني داي سامونتك يالله نانغي تي تحت رقبه الله mënoo réer yàlla virgule kenn ci ñun mun mënta rëcc yàlla ci suufu yàlla bi yàlla ci biir suufam bii minha xalaqnaakum nee na ci laa bind ñun ñëpp suuf lañ wa fiha nuidukum ci laa leen di delloo ku dee duñ la aj sa kër duñ duñ la dugal ci frigo duñ la def fenn xam nañ fa ñu la jëme mooy dañuy dem ba ca armée la gas suul la wa fiha nuidukum kon nag troisième baa ngi ñëw wa minha nuxrijukum taaratan uxra borom bi nee na ci biir suuf si leen di génnee beneen yoon te balaa ñu leen cee génne ñépp danañu dee kër yi bâtiment yi oto yi lu fi nekkoon dana fi jóge kullu kuy nit da nga dee kullu kuy jinne da nga dee kullu kuy malaaka da nga dee lépp lu newoon ci kaw suuf dana dee asamaan dana fi jóge suuf dana fi jóge biddiw yi dana fi jóge loolu lépp dara dara dootu fi nekkoon su ko defee nag borom bi soppi suuf yawma tubaddalu al ardu gayra al ardu wassamawatu matwiyatum bi yamini borom bi ne danañu jël suuf soppi ko def ko leneen lu dul suuf su toogee ba diir bu ko neex nag ñu war a dekki suuf day del siwaat bu suuf del siwaatee إذا زلزلت الأرض زلزالها wa axrajatil ardu asqalaha suuf li ci nekkoon te diis mooy bakkaar yu bëri nit yu bakkaar yee bari ñu suul ñi ci suuf ku nekk yóbbu say bakkaar loolu day diisal suuf gann ba suuf day mer danaan yàlla man day bugguma woon recevoir ñii yàlla ne ko nekk ci pexe ndax ci ñow la ñu tibboon bind leen kon bu ñu bakkaaree it ci yow la ñuy dellu borom bi ne wax ñu génne ngeen ci duy saay bi ngeen nekkoon ci kaw suuf borom bi ne ñu génne leen kon yëgal ni suuf nga da ngay dellu ci biir suuf danañu la waat jëlee la ci biir suuf kon sàmmal yàlla yàlla nga lay xool mënoo ko war a ci virgule gëm nga caméra kase xam nga ko xam nga it caméra yi ci kër yi usine yaa ngi nii léegi boo ci dugg presque amatul gardien lu ñu fay teg caméra benn mbir rek mooy yëngatu naan diw dugg na diw duggul ñi te ko defar ñu mën koo gis waaw ki bindi nit jox ko xel moomu ndax mën nga koo raw borom bi ne déedéet innahu zanna an lan yaxuuru ba ngaa foog ñi da ngay rëcc mënoo raw téere yàlla bi moo ko tiim ne ca kaw kenn mënu koo rëcc innahu zanna an lan yaxuur borom bi ne balaa inna rabbahu kaana bihi basira dafa dof rek waaye munta rëcc ndax yàlla mi ngi koy xool subhanahu wa taala yëgal ni yow jaam bi yow yaa gën a soxla maghfiratal jabbar yàlla yàlla jéggal ñu yàlla yàlla baal ñu suñu bàkkaar mbokk yi ramadan sahrun yusaffadu fii shayatin weeru koor occasion la boo xam ne danañ ci tënk seytaane monote ko dugal ko jahannam kon dawal nga jege yàlla fa qul ana mu'min ya rabb يا ويلا جمنا له man jullit laa may nga ma opportunité kon naa daw dil si ci yow fas yéene takk ci borom bi subhanahu wa taala nan ngay taqee ci borom bi mooy nga fexe ba lim lay digal nga di ko def waaye nga fexe ba lim lay tere nga bàyyi ko wala takun min man yodnib fi hada shahr góorgóorlul ba bul bokk ci ñuy bàkkaar ci weer wi soo bàkkaaree ci weer wi def nga gàcce lan mooy def nga gàcce iblis tënk nañ ko seytaane tënk nañ ko pourquoi nga ciy bàkkaar doomu aadama lan moo tax est jot taxul nga sell yàlla may na la opportunité pour nga sell may na la opportunité pour nga dal may na la opportunité pour nga mucc ba doo mën a tuumal seytaane bul def bàkkaar ci koor gi nga ni seytaane moom ko def loo soo ko defee tooñ nga ko bul mooy yàlla ci koor gi nga ni lii lépp nangam la dara defu la ko lu dul sa bakkan bakkan nag li ko tàmmal mooy wëy wan nafsuka tiflu in taxmilhu shab ala xubbi ridaai wa in taftimhu yanfatimi bakkan mook liir ñooyam liir buy namp ba am deux ans boo ko feralul nun lay continuer il faut nga feral ko guddi gi muy fer nag day metti lool dana jooy dana sonn yaayam bañ koo jox wen noonu la bakkan mel gis nga bàkkaar dafa neex boo xeexul nag sa bakkan da ko bàyyi su fekkee lu sa bakkan bëgg nga dem ko mbokk yaa ngi juum nga la waxal ni yow yàlla sa weer wu barkeel wu màgg wii duma ci def bàkkaar kon dogul bis ki tey neel insha allah weeru koor wii duma ci def bàkkaar dogul neel mukk wala akunu sababan fi lladina yudnibuun duma dem sax bay nekk sabab ci ñiy bàkkaar duma sababal kenn bàkkaar bàkkaar musiba la mais sababal nit bàkkaar moo gën a dangereux lan mooy loolu bàkkaar yaa ko defal sa bopp mais ñi nga dugal ci bàkkaar ni ñu toll loolu mooy la nit ñaa ngi woor am na ay nit yu sàggan am na ay nit yu caaxaan nga wëlbatiku nag di leen fawee di leen wax lu dul dëgg wala di leen defloo lu dul dëgg wala gëmloo leen lu dul dëgg nekk ci lan di leen doo ay musique ci weeru koor di leen fettiloo ci weeru koor di leen fàttaloo yàlla ci weeru di leen fooyeloo diine yàlla ci weeru koor weeru koor naa moos da toog ci rajo bi di fowee diine yàlla di foye diinay muhammad ngir ay nit jóg la fekk la ci loolu te yow liggéey nga ko tuddee yaa ngi ciy tedd yaa ngi ciy barkewoo ndeke yaa ngi teddee ci loo xam ne lu xaram la parce que yaa ngi woor moytuwoo fen yaa ngi woor moytuwoo bakkaar xanaa xamoo ni weeru koor waroon nga ko rus ndax weeru koor alalu yàlla subhanahu wa taala borom bi nee na innahu lii wa ana ajzi bi lépp jaam bu nekk loo def danañ la ko fay malaaka yi la koy jox su dee julli malaaka yi ñoo la koy jox su dee azaka ñoo la koy jox su dee dem màkka su dee jihaad waaye weeru koor yàlla ne malaaka yi samay jaam maa leen di fayal sam bopp jaam ñëpp rang doo góor góorgóorlu nga bokk ci rang bii taxaw ngir yàlla jox leen rang bii taxaw yàlla honoré la lan la lay honoré ñépp taxaw ngeen sàppe wa jaa rabbuk wal malaku saffan saffa borom bi ñëw malaaka yi sàppe yàlla ne ana ñi woron lan mo la tee dugg ci biir ñi woron ñan ñom la yalla fay moy ñi woron te yàlla tax ñi bàyyi won xif ak mar te yàlla tax ñi moytu won jëw ak fen te yàlla tax ñu moytu woon bàkkaar guddi ak bëccëg te yàlla tax ñooñu mooy ñi wooroon seen juróom ñaari cër woor seen juróom ñaari cër ñoom la yàlla fay lan mooy ñi wooroon seen juróom ñaari cër woor seen biir xiif na bay gurgur yi gis nañu lekk gis nañ naan waaye nee nañ du ñu ko jël ndax borom bi ñu bind xéewal ñu lekk moo ñu ko tere sa pëy woor yaa ngi woor sa jabaran fi boo soxlaa lu la neex waaye nga tëb ko même bu la jege woon ngay tëdd nelaw ci koor mu ñëw sewet nga jóg lan moo tax nga def ko borom bi mooy woor nga sa biir woor na sa pëy woor na waaye woor nga sa làmmiñ sa làmmiñ woor mooy doo wax lu bon doo def lu bon yonent bi ne man lam yada qawla zuur wal amali bi fa laysa lillahi xaaja fi an yada taamahu wa sharaba nee na képp koo xam ni bàyyiwoo caaxaan ci weeru koor bàyyiwoo ay léeb ak i maye ay comédie ak i ay théâtre ak musique di fecc ci télé bi ñu lay sétan yàlla yonent bi ne fa laysa lillahi xaaja yàlla nee na soxlawuma fi an yad'a taamu wa sharaba sa ñak lek sa ñak nan amatu solo continue nga lek ndax comédie nga bu nekk ci télé bi yakal nit ñi seen koor continue nga lek ndax comédie nga bu nekk ci musique becc gu wéru koor ngay musique di fecc ñëpp di la déglu kon borom bi nee na amul soxla yonent bi nee na yàlla amul soxla fa laysa lillahi حاجة في أن يدع طعامه وشرابه كون لك نانا ندخ شيطان نغ بغ شيطان مول بغ كين نغ تي شيطان كون فخل بس بير وور واي فخل بس لام مين وور تي جيو تي سن تي واخ لودول نونو مويتول ديري نيت ني مويتول جيم نيت ني بال واخ نيت ني بال توما لين bal di len rambaaje bal di len jaxase bal dugal len ci luñu ñu duggul kon làmmiñ bo woré tak ko ba mu deugër ba bu mu génn fexeel ba sa bakkan na wor ci noyi lu haram sa bët na wor ci xol lu haram wooralal sa bët moytul mbedd mi moytul xol xale yi jigen yi col yu bon ñi ñuy bu fekkon tay ñu gi dundu diine deug deug comme niñ koy waxe ci lim xale yi jigen yi war nañu tuup koor gi bu ñewé nañu moytu sol yére yu xat nañu moytu sol yére yu bon nañu moytu provoquer góor ñi nañu moytu yàqal leen seen koor nañu moytu dem ci place yi nañu moytu toog di déglu musique xale yi jigéen yi moytu leen loolu yéen la seen yaram yi gën a ragal lu lakk même boo nee ci waañ bu la almet lakkee nga daw kon nakamu ak jahannam borom bi ne kul naaru jahannam ashaddu harra xanaa xamu leen ni jahannam moo gën a tàng jahannam dafa tàng tàng bay jooy moom ci boppam ya rabb akala badi bada ay yàlla sonn naa yàlla na jahannama lan moo la dal mu ne ko tàngoor jàpp na ma ba sama yaram ñu ngi lekkante borom bi ne ko kaay ma may la nga noyyi deux fois ci at mi benn deux fois ngay noyyi benn noyyi bi mooy saison tàngoor bii ñu tàng bay ñàq beneen noyyi bi mooy saison sedd bi sedd ba dëkk yi glacé moo tax sedd boobu zamharir la ko borom bi tuddee jahannama ñaari façon lakk fa nekk am na lakk boo xam ne safara la am na lakk boo xamante ni glace la wal iyaadu billah kon góorgóorlul moytul nga xam ni sa nopp dafa war a woor nan ngay wooree di déglu musique nan ngay wooree di déglu ay caaxaan nan ngay wooree di taas wala ngay déglu taas kon sa juróom-ñaari cër yi bu ñu wooree nii ko islaam bëggee woon nga doog a jël koor gi nag def ko ngir yàlla bu ko def ngir sëriñ bi bu ko def ngir mbooloo mi bu ko def ngir fii laa far waaye def ko ngir sa borom ba mu lay bind yow rek moom rek yoonu kenn newu ci te bu lay jëli yow rek moom rek buñ lay tuulit yow rek moom rek kon bu fekkee moom nga wooral te yàlla tax jëmm jooju mat di nga bokk ñuy dugg ci ran bi yàlla ñu yàlla boole ñuy taxaw ci ran boobu allahumma ahdina minhum yàlla ñu yàlla jubal ñu bokk ci nga ñëw taxaw yàlla ne la yow sama jaam maa lay fayal sam bopp ran benn par benn amul xëccoo amul ràcciku amul puusante ndax ñëpp borom bee leen tiim nga ñëw borom bi di la fayal boppam naan la sama jaam gërëm naa la utal naa la kër nga ne ko ban kër mu ne hadal bayt rayyaan kër gii ñuy wax rayyaan yow yaa ko moom laa yadxulaha illa saimun nga génn côté dal droite ñu ne fan nga jëm ñu ubbil la appartement yi nga dugg fu la neex nga xool ba fi sa bët yem appartement bi di la wax marhaban bika ya abdallah marhaban bi man kaana yaduu fi hawaajiri saxsaa nee na àjjana boobu naan la ay yow jaamu yàlla bi kaay waay teraangaal nañ la yow mi doon xiif ci bëccëg yi yow mi doon naafilu guddi yi tey maa ngi lay taaral wan la loo mos a gis ci àdduna mbokk yi lii jarul woor woon ba dee jarul préparé woon ba dee boo dee xale bu góor bi lan moo ko fi jaar bu dee jigéen bi la koy yàqal jaru ko bu dee alal bi la koy yàqal jaru ko lenn lu na ci kaw suuf warul jar nga fooye sa diggante sa borom kon fexeel nga bokk ci ñi yàlla yi fay te bu la yàlla fayee ba pare yemu ci yàlla lay jox nga naan wallahi la laa ilaha gayru borom bee lay fayal boppam yëkkati mbàtt boo xam ni lépp or la kiisaanuhu adadu nujumi sama su ko yëkkatee moom borom bi ne la ngaangal nga ŋaañu yow jaam bi borom bi yëkkati loxoom yëkkati mbàtt ma nandal la nga naan wa saqaahum rabbuhum sharaban tahura borom bi nee na ma may leen ñu naan naan bu laab naan bu mooy loo xam ne boo ko naanee dootoo mar ba yowmal ba ba addun ba mu jeex ndax foofu ku fa dugg yowmal qiyaam amatul dootoo mar beneen bi doo ñaq doo am ñenn xit sa bët du jooy sa nopp du tëx sa bët du lëndëm sa jëmm léppay wér boo ko xësee ba naan mooy wér gi yaram ba faw loolu mooy wa saqaahum rabbuhum sharaban tahura yàlla nañ ko yàlla defal mbokk yi weeru koor weer la bu yàlla jagoo boppam moo koy fayal boppam ngal la waaye bul bokk ci ñuy déglu musique ci weeru koor préparer weeru koor bu dee da ngaa yore wëg man sànnil bu dee da ngaa yore clé USB tuubal ko ngir yàlla def ci alquran clé la dugal ko ci ordinateur bi tuubal ko ne ko yee eh, yow clé man jaamu yàlla laa tuub naa dinaa la tuubloo génneel musique yi ci nekkoon dugal ci ñoom Abdul Muhsin al Qasim def ci ñoom Matrud def ci jàngkat al yi ñooñu ñooy yokk sa jaamu yàlla théâtrekat yi musiciens yi fokat yi nga bàyyi ko ci sa kaset toog ñaari yoon sa xel na ci nga dégluwaat ko loolu musiba la bul bokk mukk mukk ci ñuy seetaan ay film ak théâtre ci weeru koor bëccëgi théâtre di seetaan loo xam ne lu bon la ngan la waay isaabal sa bopp yow jaamu yàlla bi xam nga ni safara kenn attanu ko ci ñun safara àdduna bii rek ku lakk ñépp danañu tiit danañu jooy kon taqarrab ila allah dawal jegeel sa borom ñuuxul sa borom ci topp ko xanaa xamoo képp ku def lu baax borom bi fay la borom bi ne man jaa bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min fada'i aminun wa man jaa bi sayyi'ati fakubat wujuhum fi an-nar hal tujzawna illa ma kuntum ta'malun suratul nam borom bi ne képp koo xam ni indi nga lu baax falahu khayrun minha man jaa bil hasana falahu khayrun minha boo indi la yàlla koor yàlla fay la lu gën koor soko indi le julli mu fayra lu gën julli boko indi le sara mu fayra lu gën sara boko indi le aj makka mu fayra lu gën aj makka boo ko indilee jàng alquran mu fayra lu gën jàng alquran lo defal yàlla yàlla yor na ci ay ton te limuy yore mo gën li nga yor motax mu ne man jaa bil hasana falahu khairun minha te yit benen ngeenel bi mu lay defal wa hum min fadain aminun kon xoolal min sabi yowma idin aminun mooy bis penc bu ñëpp tiitee nga xam ne ku nekk bis penc da ngay tiit moo tax ñu tuddee ko yowmul fadail akbar mooy bisu tiitaange bu metti bi yàlla nee na yow mi def lu baax doo doo tiit yow mi wooroon ma nangul la doo tiit hum min fadain aminun teg ca nag na képp ku indi lu bon wa man jaa bi sayia ku indil yàlla dëgër bopp yàlla maa tay maa tay milik maa tey déglu musique maa tey comédie maa tey caaxaan bu ñu ñu damm yàlla ku bëri yërmande la yàlla yërmande la jiital ne man jaa bil xasna xoola bi ayu jeexe li mu ci teg wa man jaa bi sayyi'a sooy jaay dëgër bopp ak réew ak maatay ak moy yàlla mooy wa man jaa bi sayyi'a borom bi ne fa kubbat wujuhuhum fi naar nee na dañuy dëpp seen kanam yi ci jahannam dañuy dëpp tënk say loxo dugal ko ci sa biir génn ko takk ko dëpp sa jë ngay doxee sa jë ci biir jahannam yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañu yàlla musal ci jahannam allahuma ajirna min an naar allahuma ajirna min an naar fa kubbat wujuhum fi naar borom bi nee na seen xar kanam yi danañ ko dëpp safara hal tujzawna illa ma kuntum taamaluun borom bi nee na ndax dinañ leen fay lu dul la ngeen defoon kenn ku nekk loo def moom lañ lay fay kon fexeel ba li ngay def mu baax loo fi def moom ngay fayiku kenn du jël mbuus def ci soow mu senn ndox kenn du jël mbuus def ci ndox mu senn soow mbokk li nga jëmbat ngay góob doo ji gerte ba pare góob kaani amul doo ji kaani ba pare góob limon amul doo ji limon góob pom loo ji yaa ko ji mooy génn te kat jour récolte ba bul wax kenn li ma rafetlu te baaxul yaa ko ji yaa fi nekkoon di fo suñ nee julli nga ni bu leen ñu damm suñ nee woor nga ne waaye yàlla ku yaatu yërmande la suñu nee moytu leen mooy yàlla nga ni sëriñ yee fi nekk ñoo ñuy aar lu nu wax nga ut lay parce que da ngay jaay dëgër bopp borom bi ne fa kubbat wujuhum fi naar seen xar kanam danañ ko dëpp ci beneen aaya ba wa hum fiha kaalihun dañu fay nekk di dott dotti جوي بخو خنا خمو برم بني يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد برم بني بسبنتي يوم كرف tajidu kullu nafsin ma amilat kenn ku nekk loo ji di ko góob yaay dugal sa bopp sa tool mbokk yi àdduna tool la kenn ku nekk hectare yi nga tollool mooy at yi nga dund mooy say hectare at yi nga nar a dund mooy hectare yi tool bi mbokk yi xool leen àdduna ni mu yaatoo ñun rek bu ñu séqoon fii ku nekk war a jël at yi ngay dund ñu daggal la ko hectare Sénégal ñu bëri dinañ génn yàlla ne yawmal qiyam àdduna bi ngeen di dund tool la kenn ku nekk ci yéen jardinier la fexeel na nga xam sa nombre hectare at yi ni mu toll à partir de dix huit ans ba nga majeur wala jigéen ba nga commencé gis mbaax départ boobu ba mujj ga ba fa nga dee loolu mooy sa hectare yu soor chaque jour nag yaa ngi ci tool bi yaa ngi roose yaa ngi ji yaa ngi jëmbët adduna ñaari ji rek moo fi am amut leneen ñaari jiw du xam ngeen jiw ñaar dong dong dong moo am imma muy ji lu baax wala ji safan ba ku ji lu bax di nga fekk borom be la gëna bax waye ku ji safan ba it di nga fekk borom be inna adabi la shadid motax borom bi neena yawma keroog tajid kullu nafsin ma amilat kenn ku nekk la nga jëfoon di nga ko gis min xayrin budé lu bax muhdara dana tew sa kanam nek montane yàlla nañ ko yàlla defal ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su lu bon li nga di dana jóg keroog borom bi nee na ki defoon lu bon ki doon moy yàlla ki doon caaxaan tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan baida li nga récolté muy lu bon danga nga doon ñaan ak moom muy àdduna ak àllaaxira kenn du bëgg a def gis ko même àdduna fii boo defee lu bon jour bu ñu la jàppee da ngay am kersa àllaaxira nga xool sa lu bon ñu yëkkati ko mu nekk muy montagne nga tiim ko allah looy wax tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan baida yaa laytani kuntu turaba yàlla aka neexoon ma bañ a dekki halaka anni sultaaniya yàlla nguur gi ma amoon ndeke daf ma doon wax daf ma doon nax ma agna anni maaliya alal bi ma doon dajale ndeke jëriñu dajale naa alal utee ko ci fecc utee ko ci musique ñu tagg ma milliardaire di ma tagg di ma yëkkati ndeke alal boobu yëpp tey lii la nar a doon yaa ko def yaa ubbi ay rajo yaa feccloo nit ñi yaa bonloo nit ñi yaa ubbi ay dansin yaa wayloo nit ñi yaa caaxaanloo nit ñi tey taxaw na law anna baynaha wa baynahu amadan baida aka neexoon ma bañ a xool li bañ koo jege ana ki la garanti woon anamu ma nga taxaw di xaar wàllam ana ki leen moo lay yóbbu ma nga taxaw di xaar wàll ñëppay taxaw ku nekk da nga taxaw di xaar maar na an ni maaliya ndeke milliards yi ñu ma doon taggee bu ñuy lim ci milliardaire sénégalais yi tudd ma tur la woon tey ma agna an ni maaliya nguur gi maa moon bay def lu ma neex halaka an ni sultaaniya xam ngeen li ci dox borom bi ne kii coowam bëri na xuduuhu fa xullu malaaka yi jël leen ko monote leen takk leen leen ibnu abbas nee na monote yi ñuy monotee waa safara wa salasil nee na benn bu ci nekk dana mat soixante-dix mètres loolu li ci gën a doy waar nee na dañ koy dugal ci gémmiñu nit mu génn ci suufam fi muy cabinet fu lay génn ñu takk ko comme weñ mu nekk langaamu gis nga borom fast food yi ni ñuy lakkee ginaar yi ngeen di ko gis noonu lañ leen di def wala yaasu billah yàlla nañ ci yàlla xuduhu fa gullu jël leen ko tënk leen ko summal jahima sallu yóbbu leen ko biir jahannam summal jahima sallu yàlla nañu yàlla musal ci loolu kon tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan baida borom bi ne wa yuhadirukum allahu nafsa muytu leen yàlla xam nga nooy muytoo yàlla ci jàkka yi nooy muytoo yàlla ci jumaa yi nooy muytoo yàlla jaamu yàlla mbokk yi yow mii waajal koor ذكر نفسك يوم العرض على الله فاتني السبب بس بوي تخاو تي كانمو يالا دو سول يين دو سول دال مونتو دولا توك مبخانا دولا توك دارا دولا توك يوم تخيب امام الله عريانا بس بغي تخاو سولو benn yire taxaw ci kanamu yàlla uryaan benn yére dina topp zakkir nafsaka yowma taqul waa xasrata fàttaliku sa bopp bis bu ngay taxaw naan waa xasrata ay waay perte na ay waay torox na ay waay ñàkk na yaa xasrata min yawmi nashri kitaabi ay keroog bi ñuy séddale jëf yi kenn ku nekk di xaar jëfam nga téye sa jëf yàlla boo bokk ci ñuy jëlee seen téere seen càmm yàlla buñ ko yàlla ñiy jëlee téere seen càmm li ñuy wax yaa layta nii lam uuta kitaabiya walam adri aka neexoon ma bañ a jot sama téere aka neexoon ma bañ a xam li ma am yàlla ñu yàlla boole ci ñiy jëlee ndey joor wa amma man utiya kitaabu bi yamin fa yaqulu ha umqra'u kitaabiya liirale ma sama téere mbokk yi xoolal keroog ban fan nga jëm ñaari mbooloo rek am fariqul fi janna wa fariqul fi sair soo bokkee ci ñi woor te yàlla tax toppatoo koor gi te yàlla tax da nga bokk ci ña nga xamante ni yàlla dana leen yërëm waaye boo bokkee ci beneen caaxaan ya yàlla ci yàlla musal borom bi ne wasiqa alladina kafaru ila jahannama dumara borom bi nee na ñi weddi woon ñi weddi dañ leen a tënk ñoom ñëpp nguufaan leen malaaka yi wër leen ba mu daj mang leen ku yàgg sàmm xam nga mang gis ngeen ni ñuy def nag yi topp leen benn du bu bëgg rëcc nga dàq borom bi ne wasiqa alladina kafaru ila zumara fu ñu jëm jahannam yal nañ ci yàlla musal حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم بني بجب جهنم برم بنين أب جهنم ملاكينك جهنم زبانية النار زبانية النار 19 malaka lañ 19 ñoy zabaniyatun nar xola ñom bu ñu ñewé ñom malaka yi ñoy yému ba laaj leen wa qala lahum xasanatuha alam yatikum rusulun minkum waaw yéen yéen a xana ay yonent ñëwuñu won yàlla yoni 25 yonent 313 yonent جوغي نانكو محمد خياتم ام اي وقت ني واراتي الم ياتكم رسل منكم خنا يونتي نيو نيول الله اكبر يونتي بو نيو لي سن ميتي نوبي رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم di len jangal kemani borom bi ay borom bi waye wa yunzirunakum khana dawu len tital di len wax safara ni قل النار جهنم اشد حرا خنا داول لين وخني جهنم دا فاي لاكي وينذرونكم غير لن لقاء يومكم هذا بس بي ميغي نيو خنا وكل ينتون كوي ديم سفارا تخ ميم الاخره بو فنيك دو فن كو خس بدي فن جيخنا بروم بي نينا قالوا بلا نيوم نيب ني سونتنا والله يلا يوننا يوننت يوننتي وخنا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين wala iyaadu billah yey na baatu mbugal ma ci ñi weddi woon yàlla mbok góorgóorlul mbok baal mbok mbokk ginnaaw yow ak man keneen sa jabar sa doom yow ku jigéen kii xanaa xamoo ni képp ku bëgg àjjana da nga fa teg sa bët yàlla nañu yàlla may àjjana ku bëgg àjjana da nga xanaa xamoo ni safara li la ciy musal mooy koor yonent bi nee na asiyaamu junnatun min an naar nee na koor day teeni dugg safara koor pont la boo wooree pont bi day def sa digganteeg safara doo dugg soo naroon dugg woor muy ñëw taxaw sa kanam da la jàddal fii du sa kër ndax da nga doon xiif bëccëg yi guddi yi ngay naafila maa fi taxaw du ma la bàyyi nga dem allahu akbar yal nañ ko yàlla may yal nañu yàlla may koor yu sell yal nañu yàlla may saw mu salafu saalih saw mu salafu saalih mooy comme yi ma waxoon loolu fattis nafsaka qabla siyam yow jaamu yàlla bi hmm, xoolal sa bopp avant koor xoolal koo fi tooñoon koo fi jëloon alalam koo fi jëwoon koo fi naxoon xool ko koor gaa ngi ñëw trois jours a def trois jours yi xisaabal sa bopp bu dee da ngaa yoreloon nit te am moyen demal nga fay ko su dee da ngaa jëloon yëfi jàmbur delloo ko su dee da ngaa jëwoon tuubal taxallul min al madalim musalal sa bopp ci tooñ yi umar ibn xataab radiallahu anhu doon wax ni حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا لأن حساب لنسين بابو بلاني لن حساب نقص لنسين بابو بلاني لن نقص يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية بس بنت ين يبلني كين دو موت كين دو لاكو كين دو رتي لير مك ناو نيب يوم يدين تعرضون لا تخفى منكم خافية مبقي ويرو كور عند لك بكار نينكو ميتو يونانتي بي داف ني دون ميتو لو بكار بن بي سكنا صحابه يي توك دي ريتان waxtaan bay reetaan comme ni suñu bir sax di ree yonent bi dugg seen biir chaque jour danañ doon fàttali loo yoonu bi فك صحابة وقتا بي خقتا يو يننتي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بقيتم كثيرا سنجن خمون لما خم جن يك لما يك دينجن ريلو توتي جويلو بري كون بوك ميتو الجوتي ويرو كور ميتو الفنتي ويرو كور moytu rambaaj maymun ibnu mahran nee na laa yablugu labdu darajata tuqa illa ida xaataba nafsahu muxaasabatu shariki sahihi li sariki nee na kenn ci nit ñi du àgg ci daraja yi ragal yàlla lu dul mu xisaab boppam comme ni nga bokkeeg nit ngeen am société mu lay contrôler contrôle bu metti noonu la audité di la audité nee na noonu ngay def sa digganteeg sa borom moytul muaad ibnu jabal fa laa jeexale taaxuuna am waas dafa am benn peste bu amoon am waa fisaam muy peste boo xam ne li ci dee ci ay nit kenn xamul nu mu toll moise nekk foofu biir bi metti mu nekk ci sukuraatu ndee day jékki ba ci yàgg lu muy wax danan gaay hal asbaha sabaax hal asbaha sabaax hal asbaha sabaax ثم بكى بكاء شديدا وقال اعوذ بالله من ليله صباحها الى النار كوي واخ معاذ ابن جبل خارتي يونتي بي لو بري يونتي بي دينك نكو موم لا يونتي بي اندالون واتي كاو مبام معاذ مو نان غاي ندخ بوت سيتنا كان تونتو كو تي ميتي فيبر بي سوكرا ندخ بوت سيتنا كان تونتو ماني ندخ بوت سيتنا kenn tontu mu ne yàlla nañu yàlla musal ci guddi goo xam ni bu la bët di set fekk jahannama la lay fete mooy tëdd nelaw dee dem jahannama fooy dekkee jahannam yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañu yàlla aar allahumma ahdina wa ahdina bil amin allahumma ballighna ramadan allahumma ballighna ramadan yàlla yàlla na nga ñu àggal ci weeru koor yàlla na nga ñu jékkal suñuy bàkkaar balaa ñoo woor suñu wooree yàlla na nga ñu nangul li ñuy woor luñu joom yàlla yàlla na nga ñu ko jéggal yàlla na yàlla aaral ñu boppam comme ni mu aaree guddeeg bëccëg yàlla na yàlla boolan ci ashabul yamin yàlla na yàlla boolan ci ashabul yamin yàlla nañu yàlla booleeg yonente beeg siddiqin ak suhada ak salihin wa hasna ulaika rafiqa wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh insha allah dañuy tëj dars bi tey ba koor gi jeex bi idnillah su koor gi jeexee incha allah ñoo ngi waroon dal ci amul xagan incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu